mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbokk ci cérémonie officielle fii ci Tiwaawan bu di cérémonie officielle boo xamante ni baaxoon nañ ko ca Seydi Aboubacar ca Sëriñ Mansour ca Sëriñ Abdul Aziz Dabba ci Sëriñ Mansour borom daara ba ci Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum li nga xamante ni tey rakkam di Serigne Abdul Aziz ngeen di gis noonu waajtaay gi ci mu génn ci biir kër gi dem jubali sa cérémonie officielle ba Abdoulaye Daouda Diallo na ànd na ak ay ministre yeneeni jëwriñ yoo xamante ni ñu ngi bokk ci gouvernement de la République du Sénégal ñu teew noonu ñu doon ñoo xamante ni nii ñoom it ay jëwriñ lañu nii ñu ko defee ci Tiwaawan ñu baaxoo ko kooku mooy Abdoulaye Matar mi nga xamante ni moom it mooy grand serigne de Dakar Ablaye Matar Diop a ngi noonu et yeneen i jur yi nañu noonu seen Youssou Ndour ak Seydou Gueye ñu seen gouverneur bu région de Thiès Serigne Abdou Aziz a ngi moom tamit jëwriñ yaa ngi noonu ñu seen Maxtaar Siise Omar Youm Omar Gueye ñu ngi seen ñu ngi toog ñoom it ngir fas yéene nga xamante ni nii mooy ndaje mu am solomi mi ndaxte ci daje yii gouvernement bi dina ñëw ndax moom lim nga xamante ni moo mat matu kaayam jël na ko ba mu mat sëkk wala déet ndaxte kilifa gi it dina wax ci réew mi dina wax ci taalibe yi dina wax ci diine ji kooku Serigne Moustapha Cissé la moom it bokk ci kër gi mu ngi noonu dend ak Serigne Baara Abdoulahat moom it di koo xamante ni gis nañ ko taxawaayam ci kër diine yëpp seen Seex Sidi Maxtaar Mbàkke yebal ko fi te it fépp foo xamante ni diine nga fa ma nga fa ak mu jot dina ni faral di daje ca màkkatal mu karama bu ko yàlla di dogal te gis ngeen ñooñu la ñuy wax koskaas gis ngeen cérémonie officielle baa ngi noonu ñooñu la ñuy wax kafkaas ñoom ñoo xàllal ki nga xamante ni moo di ki yor baatu njaboot gi di Serigne Abdul Aziz Al Amin muy dox noonu di ñëw ak délégation boobu nga xamante ni njaboot gi ngi ci njabootu Serigne Babacar a ngi ci njabootu Serigne Habib ibnu Seydi El Hadji Malick Sy ci njabootu Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh ñu ngi ci kooku ñuy seen duudu kenn mbay la kooku mu dendal moom tamit bàyyeekoo ci njabootu Serigne tuuba di Cerno Faal maam Cerno ñu ngi noonu cérémonie officielle nag daf di xew-xew boo xamante ni nii bari na lu ci daan feeñ ci daan feeñ bokk ci diggante gouvernement ak këru seen lëkkaloo te it nii la bi di defee saa su ne fépp foo xamante ni nii xew-xewu diine am na fa ñu yebal fa ñi nga xamante ni ñoom ñoo teewal nguur gi te laataa ñuy ñëw ci bis bi le président de la république dina yëkkati tànkam dem fa nga xamante ni fa xew xew-xewu diine bi di amee ñu wax ko ay bëgg-bëggam ak yi nu yaakaar ne buñ ko defee gàmmu gi wala xew-xewu diine bi dina mucc ayib loolu lépp nag buñ ko ko waxee ba pare ci la jëwriñ gi nu dénk wàllu biir réew mi yëkkati ay tànkam moom it dem fa nga xamante moo di ca bërëb ba daa di waxtaan ab njaboot ga bu dee ni ca Kaolack la yu dem ca njabootu maam Abdallah Niass bu dee ni ca Medina Baye la it dinañu yegg ca kër njabootu maam Baye Laay njabootu maam Baye Niass bu dee ca Léona Léona dinañ dem ca njabootu maam Khalifa bu dee Yoff ñu dem ci njabootu maam Baye Laay waxtaan ñoom. bu dee njaasaan noonu la ñuy def dem ce kër maam Cheikh bu Mouhamed Kunta waxtaan ak xalifa ba bu dee ni ca jaamal la ñu dem fa waxtaan ci lan mooy doon seeni bëgg-bëgg bu dee ni dàkka jot na it la gouvernement di def fépp foo xamante ni nii këru diine la ba ci sunu mbokk yi nga xamante ni bokkunu ak ñoom diine wala ñu waaye ñun ñoom ñoo bokk réew loolu lépp daal mu di loo xamante ne ni baaxoo nañ ko fii ci réew mi tey jii nag Tiwaawan moo xewle Seydi El Hadj Malick njabootam ñoo xewle ci màggal juddu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mbokk yi muy xew-xew boo xamante ne nii bu dee zik am na fi jaamu nañ fi sunu boroom bu dee ni yëkkati baatu laa ilaha illallah am na fi jaamu nañ ci sunu boroom bu dee ni mbindam Seydi El Hadji sila am na fi jaamu nañ ci sunu boroom lépp loo xamante ne nii baat la bu bokk ci sunna am na fii ci Tiwaawan yàgg fee am waaye bu gàmmu ñëwee nag àdduna ñooy wàlli si ñii ñu nga jóge bitim réew bu nu xoole bi réew mi it li fi jóge lépp ñi nga xam ni ci réew mi lanu bokk boo demee Casamance ñi ngi fi Tambacounda ñi ngi Fuuta ñi ngi fi fépp foo xamante ni daal ab jullit mi ngi ci réew mi ñi ngi fi waa Sédhiou ngi fi waa Vélingara ñi ngi fi waa Ndara ngi fi ndaxte xam Ndar bokk na ci moo jëkk nekk capitale bu ayof Afrique yëpp fi daan daje booba tubaab bee yilif te gis nañu tànk yi nga xam ne abu Aboubacar ni ganesi àdduna ndar gis ngeen moom doomu ndar la waa xalifa baa ci euh, porte parole lañu noonu du ñëw sëñ Abdou Aziz Al Amin mi ngi noonu du ñëw ànd ak njaboot gi yëpp fas toog waxtaan ak jullit yi moom di koo xamante ni mën nañ ko tuddee le gardien du temple ndax taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci kër Seydi El Hadji Malick seen bu ñu seenee seen nanu xalifa bi ndax noonu mu jàppee ci loxo bi noonu la ko doon defee ci bési sëriñ Mansour borom daara ji di nekk mu doon loo xamante ni ni lu jóg si baaxoo la fii ci Tiwaawan waaye yaakaar naa ni tey tamit def na lu ni mel njaboot gi yëpp a ngi noonu ànd ak Serigne Abdou Aziz Al Amin nee ku xaritoo woon la ak waajuram wi Serigne Babacar te li nu seetlu ci moom mooy li ko ñor lépp mooy lu yëkkati diine ak baatu salaatul fatiha lu yëkkati diine ak lépp loo xamante ni bokk na ci sunna lu yëkkati diine ak njabootu Seydi El Hadji Malick ndeysaan yi ñu ngi ñu ngi seen sëriñ Mbay Si Mansour ñu ngi seen sëriñ Abib Si ñu ngi seen sëriñ Mansour Seydi Jamil ñoo ngi seen ay rakam ñi mu àndal ci wéen tànk yi nga xamante ni seeni waajur am nan ko ci lislaam am nan ko it ci réew mi mi ngi daje ak ak këru loolu du guléet de lu nit gàtt gàtt nopp dégg nga diggante Lamine Gueye ak Serigne Babacar wala dégg nga diggante Léopold Sédar Senghor ak Serigne Fallou Mbacké waaye xanaa dégg nga diggante Abdou Diouf ak Serigne Abdou Lahad Mbacké xanaa dégg nga diggante Abdou Diouf ak Serigne Abdou Aziz Dabakh Malick waaye dégg nga diggante Abdoulaye Wade ak Serigne Saliou Mbacké moom Xaadimu Rasuul waaye yaakaar naa ne kii nekk tey ci bopp réew mi depuis le président Macky Sall moom it bi mu ñëwee jël na këru diine yëpp dem fa doom doon fa doom doon fa it ndax wax leen ma lan moo manque wax leen ma lan laa war a def wax leen ma li may def nu mu toll ci rek le président de la république nekk ci këru diine yi mu di loo xamante ni nii gis nañ ko moom la yóbbu Tiwaawan moom la indi fii gis nañ ko lu ni mel la def ca Touba Mbacke gis nañ ko lu ni mel moom la fas def ci kër yëpp génn na budget bu mag mu ne budget bii daal li ko tax a jóg mooy kër yu diine yi ndeysaan Moustapha Sy ngi noonu waajuram la woon ak Seydi Aboubacar ay waajuram la woon ak si El Hadj Malick ndeysaan sëñ Baara Abdou Lahat ngi noonu gis ngeen ko moom tamit digganteem ak sëriñ bi lii mooy senegal Sénégal a ngi nii boo demee ci këri diine yi ndeysaan sëñ Cernoo ngi noonu moom tamit ñu ngi noonu nuyu xalifa bi ndeysaan représentant këru diine nga xamante ni nii naar yooyu ñoom ay mbokk lañu gis ngeen ah sëriñ Abdou nuyu na koo xamante ni nii ku ko gis rek sa xel war a dem ci sëriñ Abdou Aziz Dabar ndaxte naar boobu daana nu dem sa ko naaru sëriñ Abdou Aziz bi daanan wax naaru sëriñ Abdou Aziz ndeysaan mi ngi noonu le ministre de l'intérieur ngi noonu jóg na lu yoon teeg moom nuyu na sëriñ bi jàmm santeeg moom na ngay waxtaan te yaakaar naa ni loolu bokk na ci li nga xamante ne ni moom la ñu xam ci réew mi le grand sëriñ de Dakar it Ablaye Matar Diop moom it ngi noonu taxaw sëriñ Mbay Si Mansour sëriñ Mansour Seydi Jamil njaboot Seydi El Hadji Si gaa ngi noonu sët yaa ngi noonu te tey jii bu seen maam dellu si du leen defaraat leen seen toogaay ndax li war sët danu ni ku yokkul yow yaa wàññ waaye ñii yokk nanu ñii yokk nanu yokk goo xamante ni tey ku ñëw Tiwaawan xam ni sët yi yokk nanu sànce yaa ngi fi liggéey baa ngi fi di liggéey boo xamante ni nii Mataa Siise ngi noonu du ministre du chef de cabinet président de la République Serigne Mansour Seydou Djamil Omar Gueye ngi noonu ministre moom it ko wàllum ndox Seydou Gueye ngi noonu Youssou ministre conseiller du président de la République Omar Youm mi ngi tamit du ministre ñu dénk ko décentralisation gouverneur yeeg préfet yi gouverneur bu région de Thiès préfet bu région de Thiès préfet sous préfet wala préfet bu Tivaouane ñëpp a ngi fi boole koog nag këru diine yi yaakaar naa ni li nu soxla ci li bokk na ci muy ñaar ñoo xamante ni ni jàppante nañu le député Abdou Mbow ngi noonu Coumba Ndoffène Diouf moo nekk ci ginnaawam mi ngi waxtaan ak sëñ Mansour Seydi Jamil lii bokk na ci li nga xamante ni ni am réew da koo soxla daje di waxtaan dina indi jàmm ndaxte jàmm jinu nu am ci sunum réew nanu ko sant yàlla lii lépp jàmm ko waral Omar yu noonu moom tamit mu doomi caajaay bëgg fa mu dëkk di liggéey liggéey boo xamante ni mi ngi koy def ci wàllu gouvernement yaakaar naa ni bis yu mel nii da di bis yoo xamante ni sëriñ Mansour sëriñ Mbay Mansour mi noonu moom tamit di rakk ci xalifa bi di rakk sëriñ Abdou ndax sëriñ Mansour ak sëriñ ñoo bokk Sidi El Hadj Malick kilifa yaa ngi noonu ñoom tamit ñëw teew teewaay bu yaatu boo xoolee diplomate yi ñi ngi fi corps diplomatique bi ñi ngi bari na fi ñoo xamante ni nii ñi ngi noonu ñii Iran la ñu jóge ñii ñoofi fi toogal Tunisie ñii ñoo toogal Algérie ñii ñoo fi toogal am na ci ñu jóge États-Unis wax nga dëgg ñii ñoo fi Mauritanie France ndeysaan borom jàllaabe boobu américain la te xam ngeen Amérique balaa nga xam yu bari ci wàllu lislaam ma nga Amérique boo fa demee gis ni lislaam bi yokkoo foofa ci réew moomu ndeysaan moom moomu ci burdu bi jàng na fi ay alxuraan yoo xam duñ ko fàtte yu neex waaw ñu ngi noonu kooku jàng na fi ay jàng yu neex yoo xamante ni wax fi alxuraan ndaxte États-Unis it buñ ko dégg rek yaakaar ni leneen mbedd bari na fa mbedd yoo xam ne mbedd boo jaar am na jàkk boo demee ci biir New York Harlem bari na fa ay jàkka boo demee New Jersey bari na ay jàkka bari na fooy dem ci Amérique ay jàkka nga ndaxte dëkk la boo xamante ni lépp nga fa loo soxla rek am na fa kon yaakaar naa ni mbokk yi tey mën na ni le monde entier ñu ngi fii tey daje ci senegal ci dëkk bii nga xam ne moom la ñuy wax Tiwaawan kenn manqué wul ñi bokk ci réew mi ñëw nanu ñi bokk bitim réew ñëw nanu këru diine yi ñëw nanu senegal daal tey nin ko defe woon ci yeneeni dëkki diine ci mi tey jii Tiwaawan moo aye moo tax ñu war a sant yàlla ginnaaw buñ jógee ci màggal ñu dugg ci gàmm te gàmm yi fii ak weer dañuy gàmm nga xam ni kon mën ngaa jàpp ne ñaari weer ci réew mi ci gàmm ndeysaan El Hadji Malick a ngi noonu moom sëñ Abdou Aziz Dabakh Malick ci ginnaawam dafa mel ni sëriñ Abib Sakho laay seen moom alaaji Ibu Sakho waa ndeysaan borom xam-xam bu mag boobu nga xamante ni nii duñ ko bu mukk taxawaayam lu mu jàng ni maa ngi ko jële ci Seydi El Hadji Malick Sy mi ko nangoo ci njàngalem yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon yaakaar naa ni tey bis la boo xamante ni bu nu xoolee ni cérémonie officielle bi mel ñu xam ni tey jii réew mi yëpp ngi kon ñun li nu war mooy ñu sant yàlla bu nu amee réew mu mel nii jàmm am fi ñu ñaanal kilifa diine ñu war a ñaanal it suñuy kilifa aada corps diplomatique baa ngi noonu ñoom di nuyoo corps diplomatique bi fu ne ambassadeur yu bari ñi nga xam ni seen réew ay réew yu jullit la ñi nga xam ni seen réew même budul dul réewi seen réew am na ay jullit kon yaakaar naa ni tey daf di bis boo xam ne fii ci Tiwaawan war mooy ñu ñaanal Seydi El Hadji Malick Sy wax naa leen ko bi muy tàmbalee gàmmu gi ataaya la woon ak mbiskit ataaya mbiskit alxuraan ba bët set moo ngi ay ay muqaddam ñoom la ko bokkaloon tey jii at yàlla indi na ataayaak leneen booba amul woon cérémonie officielle booba tubaab bee fi nekkoon di xatalaate bëggul dara ci biini te tey jii loola mag ñi jële nañ ko fi bula la neexee julli fu la neex nga julli kon loolu sunu mag yi nga xam ne ñoo fi nekk boobaak léegi nañ leen ñaanal yàlla yokk seen leer yokk seen taxawaay ndaxte ñaanal nanu réew mi ci anam yu bari suñu réew du réew boo xam ni koom-koom bi bari na waaye yaakaar naa ni am na lu fi mag ñi baax keroog ba dévaluation amee Serigne Abdou Aziz Dabakh Malick dafa jël rajo bi booba bu ma juumul benn télévision moo fi am ak benn rajo ni yàlla dévalué wul dévaluation dinañu añ dinañu reer lépp lu ñu bëgg dinañ ko def bu dévalué bu dévalué wul bu tubaab bi dévalué ak bu dévalué wul lépp diina dina feeñ dund dina feeñ waa ndeysaan kooku sëriñ mbuub la doomi daara ci daara ji la jóge créer entreprise ci daara ji la jóge dem Japon si daara dina jóge dem Amérique ci daara dina jóge wër àdduna liggéey loo xamante ni ay junni doomi aadama ña nga liggéey kon yaakaar naa ni dañuy waxum njàng waaye njàngu daara it am na njëriñ lool njëriñ loola ku xool buub xam ni borom jom la borom fulla la looloo ko may limu mu am tey jii yal ko yàlla yokk te barkeel gi daal a kilifa yaa ngi noonu toog ñoom tamit ñëw déglu ginnaaw boo xamante ni nii fanaane nanoo zikkër ginnaaw boo xamante ni ci subaat léegi kër goo ci dem baax la ñuy wax kër goo ci dem njub la ñuy wax kër goo ci dem diine la ñuy wax kër goo ci dugg sunna la ñuy wax ginaaw loolu nag ñu dalal gan ñi dalal gouvernement bi waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom moo ñor réew mi nañ fàttaliku li ñuy ñaan fi étudiants yi njàng mi yàlla jaar ci anam yu rafet njàng meek liggéey bi bari na réew mi ñu liggéeyul yàlla na leen sudu borom ci ñaan yenu ñaan fii yàlla may leen ay xëyukaay jigéen ñi ñaanal leen bari na ci ñoo xamante ni bu wax ci liggéey bi ay liggéeykat bari na ci ñoom boromi jom boromi full te réew mi fu mu toll rek yaakaar naa ne ñoom it am nañ ci cër bu yaatoo yaatoo yaatoo kon ñoom tamit ñu di leen fàttali ku baax na ci li baax ci réew mi ci lanu ñu di leen di ñaanal ndaxte lii lépp ñoom it ñooma ndax ku fi baax ñoo fi indi ñu ñaanal leen ñaanal it borom kër yi yàlla oyofal leen ko yor mitti na yar mitti na yor yombul yar yombul jubbanti yombul bant bu dëng balaa nga koo jubbanti boo amulum xel dam kon ki la jël def ci yow xam-xam def ci yow diine te fekkoon la ci leneen am na numu mu def ba naxtaan ak bant ba ba jubbanti ko ba bu bant ba jub bu jëkkoon leneen a fi amoon ci ñu ko di koy wax cedd sëriñ Habib ndeysaan bu sëriñ Mansour moom tamit mi ngi noonu ndeysaan njaboot xam na ni kenn du fàtte borom daara ji njaboot sëriñ Mansour a ngi noonu boo leen gisee ñu sañse nga xam ni seen waajur wala nu nuru yiw borom daara ji yiw lool lu muy wax rek alxuraan lay wax lu muy wax diine lay wax lu muy wax rek lu yokk lislaam ci la sëriñ Mansour borom daara ji nekkoon yal na yàlla xare ko àjjana yal na ko sunu borom yóbbu ci barzàqu yont yàlla Mohamed léegi nag mbokk yi yaakaar naa ne ñu déglu sunu waajur ñun mu di alaaji Mansour Mbaye sunu xarit sunu soppe nekk kenn ci réew mi yëpp di représentant Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xalif généralu Tijaani di ko nuyu bu baax moom Seydi Abdoulaye Al Amin di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla may ko gudd kon yàlla may ko wér ci darajay sang ba tëdd ci biir su mun a du nuyu bu baax Sidi Aboubacar Si ibnu Alaaji Mansuur sama doomu turandoo di ko ñaanal li ma ñaanal magam ju baax jooju xaritam boobu soppeem boobu jarbaatam boobu moom itam yàlla may ko wér ak gudd fan Cheikh Seydi El Hadji Malick seen rek yàlla may ko gudd fan moom itam ak wér tey nag mooy cérémonie officielle bi am na ñu xam ni à travers le monde entier kenn dootul wax rek Sénégal kenn du wax rek Amérique wala France wala Italie duñu wax à travers le monde entier ñoom ñëpp ñëw nunu ci woote bi xam ne Seydi Abdoul Aziz Al Amine magam bi xaritam bi soppeem bi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo ko ne woon na nga woote Sénégal yëpp addina bi yëpp kon si Malick addina bi yëpp ñoo kenn du wax région sàngam kenn du wax pays sàngam le monde entier yi xam ni ñoom du aju ci ki xam ni ak bil ak bu jubee ci biir du kenn ku ne seulement ci Seydi aju ci moom ñëpp. te woote bi ko ñëw na ci ndigalu Cheikh Sidi Ahmed kon nag fii di ziar lii la ma jox comme imam Ahmed bu mosquée Ousmane Ibn Affan bu New York aux États-Unis ci boppam incha allahu mooy jàng alquran su paree sunu doom sunu xarit sunu soppe nu tuddee ko sunu maam alxaaji amit kan di sëriñ abdul hamid si dana wax gan yi xam ni noo fi teew si su paree ci xam ni moo jóge ca mohamed siis wólëre maak ak maam kër maam ca si alxaaji malik yàgg moom itam ñëpp xam ko latif bahdouri directeur de cabinet du ministre marocain chargé des affaires religieuses su paree ñu jox ci ki xam ni moo jóge ci chef de l'état de l'espoir jóge ci casier de la constitution yaru lool alal jaww ji baax lool mu pare mu sànni kàddu yi xam ni borom réew mi xam ni fi mu julee àjjuma barki dem ak gouvernement bi ñëpp ak ak soxnaam Mariam Faye ñoom ñëpp fi mu julee àjjuma tey nag mu yebal ci xam ni affaire religieuse yëpp. suñu borom tabaraka wa taala ci loxoom la nekk président jox ko ko moom ci boppam mu sànni message bi ko chef de l'état jox su paree nag sunu sëriñ sunu xarit sunu soppe Seydi Abdoul Aziz Al Amin dalal gan yi yëpp daal mooy programme bi xam ne jox dunu ma ko alxaaji Amin bismillah si ah kaddu yi El Hadj Mansour Mbaye mu teew fii lii mooy rôlam baayam Amadou Mbaye Maodo moo newoon fii baayam Amadou Mbaye Maodo moo toogoon ak Seydi Aboubacar baayam Amadou Mbaye Maodo moo doon tey jii moom Hadj Mansour yàlla na yàlla guddal fanam moo toog fii foo ci dem rek askan wi ñuy tuddi askanu géwël am fa cër bu mag yor baat bi nga xamante ni yi soxla nu kii nag États-Unis la jóge ca Amérique di jullit war yëkkati ay kaddoom fii ci Tiwaawan mu di kàddu yoo xamante ne nii kàddu lislaam la alxuraan lay fas yéene baatu alxuraan la fas yéene yëkkati defoon na ko ci burdu bi dugg ci xol ñu déglu ko moom it mu yëkkati baatu alxuraan jagleel ko ñi nga xamante ñoo di jullit yëpp moo tax lislaam dëkkul ci menn réew dafa tasaaroo ci àdduna bi ñu déglu ñu ko bokk bari nanu réew moo dem alxuraan am na fa kon ñu déglu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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم daala Radha Seydi El Hadji Malick Sy ci dëkku Seydi Aboubacar ci dëkku Abdul Aziz baat yaa ngi noonu di baat yoo xamante ne nii war nañ ko mën a jëriñoo ndeysaan Sidi Ahmed a ngi doom la si Sëriñ Abdul Aziz Dabakh boo ko xoolee gis ci moom Serigne Abdou Aziz ndeysaan ku jur doom deewoo وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci ndigalu الخليفة العام سيد الشيخ أحمد تيجاني ci taxawaayu rakkam yu baax yu nekk ci sunu gannaaw mu di Seyid Abdul Aziz Al Amin di Sëriñ Babacar ibn alxaaji Mansour di sëriñ alxaaji Malick Sy ibn Abdul Aziz ak mbooleem njabootu Seydi alxaaji Malick Sy mi ci Tiwaawan ñu ngi dalal gan yu tedd ñi ci daje ci turu njabootu Seydi El Hadji di la feeñalal gan yu tedd yi fi teew xam naa ku lim juum waaye mënul ñàkk ci bëccëg bu ñi jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw tegante loxo ak ki nu faggul bis bi ci Sénégal mu di Seydil Hadji Malick ñu feeñalal la délégation mu jéggal ñu bu fekkee ni suñu làmmiñ damm na ci ñàkk tudd ñenn ñu fi ne waaye jàpp ni ci moom bi gis na ñëpp ñu dooree ko ci délégation gouvernementale bi ci daje nu wax la ni sa doom Abdoulaye Daouda Diallo moo jiite délégation gouvernementale du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ñu ngi ànd doom Mouhamed Makhtar Cissé du directeur de cabinet du président de la République ànd ak monsieur Alioune Sarr du ministre du commerce monsieur Oumar ministre de la gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire du porte-parole du gouvernement du Sénégal di ànd ak monsieur Oumar Gueye du ministre de la pêche et de l'économie maritime di ànd madame Khoudia Mbaye di sa doom du ministre de la promotion des industries di ànd monsieur Mansour Elimane Kane du ministre des infrastructures et du transport ñu ànd ak madame Fatou Tambédou ministre de la restructuration des zones d'inondation ñu ànd ak sa doom di monsieur Youssou di ministre conseiller auprès du président de la République ñu ànd ak monsieur Arona Coumba Ndoffène Diouf di ministre conseiller auprès du président de la République ak madame aw Amsatou Sow Sidibé moom it di ministre conseiller auprès du président la République ñu ngi ànd ak sa doom Abdou Ndéné Fall Fall du secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire di doomu Tivaouane ngi ànd ak monsieur Seydou Guèye directeur de cabinet adjoint du président de la République. monsieur Mamadou Ibrahima Lo directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. ñu ngi ànd monsieur Léopold Wade du directeur général de l'administration territoriale auprès du ministre de l'Intérieur. ñu ngi ànd ak Dame du directeur de la protection civile Sadibou Diop du directeur des affaires générales du ministère de l'intérieur ak monsieur gouverneur de la région de Thiès ci sa doom superviser liggéeyu administration bi jëmale ci gàmmu bi ñu sant ko ci sa tur ci turu njabootu Seydi Hadji Malick ñu ngi ànd ak monsieur Maguette du préfet de la région de Thiès du préfet de la ville de Tivaouane mu ngi ànd ak Maodo Malick du directeur de l'ANAMO agence nationale euh, de la maison des outils ñu wax la it ni ci wàllu corps diplomatique bi ni ñoo fi teew Excellence Monsieur Lamine Cheikh Mohamed Fadel ambassadeur de la République de la Mauritanie chef de délégation ñu taxaw ci moom tuuti ndax yàlla dafa def mu nekk xaritu kër Seydil Hadj Malick nekk ku leen jàppale ci wàllu xam-xam ak éducation institut bi nga xamante ni ci ndigalu xalifa bi taxawal nañ ko fii ci Tiwaawan jàngalekat ya fa nekk bu ñu ci tànnee fukk ak juróom benn moo leen yabal ñu jóge Mauritanie ngir ñëw former njaboot yi jàng ci institut boobu nu sant ko gërëm ko ci teewaayam di ni excellence Doudou Bane Diagne di ambassadeur de la Gambie mi ngi teew ñu wax la nit ni excellence Hassan Ali Bakshi di ambassadeur de l'Iran mi ngi teew ànd ak délégation bu yaatu jóge Iran ñëw représenté république islamique d'Iran fii Sénégal ñu wax la ni ci ci teewal ambassade d'Algérie moo di Ali Boukhayfa di conseiller ci ambassade bi monsieur Cyprien Dross et Georges Catino ñoo ci toogal ambassade bu Roumanie ñoom nekk conseiller ci ambassade ambassade d'Égypte monsieur Haytham Al Asrani moo leen ci représenté ambassade des Émirats arabes unis monsieur Moustapha Pouy nekk représentant de l'ONG Human Appeal International ci wàllu secrétaire d'ambassade ñu xamal la ni d'ambassade bu Arabie Saoudite mi ngi teew ñu jàll ci délégation étrangère yi nga xamante ni teew nañu fii imam Ahmad Douaidar des États-Unis moom lañu dégg léegi mu jàng euh, ayatul alquran yi ñu dégg mi ngi ànd ak imam Moussa Mouhamed Majdi ñu wax la ni appel islamique mondial teew na fi ki leen fi représenté di monsieur Abdoul Fattah ñu wax la ni délégation professeur bi Afsa Azharia d'Égypte ñoom teew nañu de même que délégation, la délégation des professeurs de la Mauritanie ñoo xam ne ni école Yabou Salim yónnee na ci délégation ñu wax la it délégation Ayib Sultan teew na fi ñu xamal la délégation bu institut islamique socialiste teew na fi délégation Daaral Fatah bu Liban ñu wax la it ni père Bassam Ayit délégation de la mission libanaise teew na ci bis bi ñu wax la ni Cheikh Mouhamad Fall directeur de l'institut Malayni moom it teew na ñu wax la ni aussi ci wàllu délégation diplomatique accrédité à Dakar de l'ambassade de la Palestine le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan teew na bi parlement du Sénégal assemblée nationale ñu feeñalal la ñi ci le président Moustapha Niass ànd na ci délégation bi du chef de délégation bi mu l'honorable député Abdou di sa honorable député Zator Faye honorable député Cheikh Tidiane di sa honorable député Thierno honorable député Ndeye honorable député Ndeye Lucie Cissé honorable député Moustapha Ndiaye honorable député Amadou Tidiane Talla honorable député Djibril honorable député Yeta honorable député Sira Ndiaye honorable député Ndeye Awa Mbodj ñooñu ñoo ñëw représenté ci sa mbokk mu baax di Moustapha Niass ci turu assemblée nationale du Sénégal ci conseil économique et social yabal nañ ci délégation bu am solo euh, ki ko jiite di euh, Ndeye Wele ñu wax la ni ni parti politique yi kenn deful euh, commencé ko ci APR jàll ci PDS jàll ci AFP AFP délégation bi El Hadj Malick Diop moom it di sa doom moo ko jiite réew mi teew na fi sa doom Thierno Bocoum ak Yankoba Diatara ñoo leen fi teewal ñoom it di say njaboot PIT yabal na Maguette Thiam mu di seen euh, secrétaire général ñoo xam ne ni Ibrahima Fall di sa doom di doomu Tiwaawan moom it teewal na ci euh, parteem di taxaw tem lii moo di ñi fi teewaloon parti politique yi ñu ñëw ci ñi ngeen teqal diine ji mu di famille religieuse yi fi teew nu feeñalal loolu sa mbokk mu baax di sa sëtu sëriñ mu di Cerno Xaaji Muntaga Kan teew na fi représenté fi suñu maam Muntaga Jaxate bu Louga ñu wax ni rek mbokk mu baax ma ca Tuuba di Sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke yabal na ci délégation bu am ka ko jiite di Sëriñ Baara Abdul Ahad Mbàkke Euh, mu ànd ak Serigne mu ànd ak Serigne Mbour wax lañu sa mbokk mu baax moomu di son excellence monsieur Moustapha Cissé et on ne peut représentative famille Amadou Cissé Pur ni la famille Cheikh Bou Kounta bu Njaasaan teew nañu fi di ci leen ci di sëñ Mouhamad Kounta ñu wax la ni la monsieur Abdoulaye Mactar Diop di grand serigne de Dakar teew na fi ñu wax la ni la El Hadji di xalif général Njare wa Warte moom it teew na fi ñu wax la ni la délégation Fuladu ci lañ fi représenté di Thierno Wahab Seydi teew na fi délégation famille Andoulaye Thierno Moustapha Dramé moo leen fi teewal ñu wax la ne délégation amiru jamaatu ibadu rahman teew nañ fi ñu wax la ne la imam Maodo di représentant fondation Khali Omar Fall bu Pire teew na fi ñu wax ne El Hadj Ousmane président des Frères de Dakar teew na fi ànd ak délégation bu nga xamante ni grand serigne de Dakar Pape Ibrahima Diagne moo ko fi yebal ñu wax leen ni rek serigne Ousmane Ndiaye imam ratib de Ziguinchor teew na fi ñu wax leen ni rek Tafsir Sakho représentatif famille Elimane Sakho teew na fi ñu wax la ni la El Hadj Mouhamad Lamine Diop famille El Hadj Abdoulaye bu Rufisque teew na fi moom it ñu dellu si rek tuddaat ñenn ay autorité yu fi teew mu di Aliou Sall di sa di maire Géejawaay teew na fi soxna Seynabou Gaye Touré présidente conseil départemental bu Tivaouane teew na fi le maire de Tivaouane mu di sa doom Mouhamad Diagne Sy Mbengue teew na fi nous feeñal teewaayu délégation marocaine bi moom lañu mujje di se représenter de sa majesté le roi Mohammed VI nekk seer ci famille kër Seydil Hadji Malick ki jiite délégation bi di le directeur de cabinet du ministre marocain des affaires religieuses di Abdou Latif di sa xarit ànd ak bu am solo yoo xamante ni ñu ngi jube Maroc ñëw fekk ci bis bi teewe bokk ak ñun yëg-yëg ci lii ñu ñu feeñal ne it ni Seydina Isa Laay yegg si na moom it représenté fi famille suñu maam Limaamu Laay nu wax la it ni ci parti politique yi euh, Cheikh Tidiane Gadio di yor yor euh, mouvement MPCL teew na fi ànd ak euh, euh, yabal fi délégation bu am solo boo xamante ni ku wax Malick Diop Abdou Aziz Kane Ibrahima Mbuub ak Ndiogu ñoo ko teew ñu wax la ni la ci famille waa kër Cheikh Omar Thierno Nourou Tall moo leen fi di sa doom di doom ci sa mag Seyd Bachir loolu mooy liste délégation bi ñu ma joxoon nu tudd leen ci ñu fàttali ni Cheikh Abdoul Moumoun Zeyn di directeur centre culturel chiite euh, libanais ànd ak sunu papa Mouhamed Barouk Sy moom duñu ko mën fàtte ndax ci jaboot gi la bokk ngir yàlla kóllëre gi mu seqoon ak sunu maam ju baax ji Seydi Aziz El Hadji Aziz Sy Dabakh ñu wax la ni la représentant wu Cheikh Amar aussi teew na fi suñu wax Kader Ndiaye lii moo di liste délégation bi noonu waxoon ñu présenté ko bu amee manqué manqué ñu xam ni ci man la waaye yéene bi moo di ku fi teew rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis na la Seydil Hadji Malick gis na la ñu sant leen wa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa kon mbokk yi yéen dégg kàddu yooyu quatre kon ñu jàpp ni ñëpp a ngi leen ko waxe woon rek àdduna bi ñëw nañu àdduna bi ñëw nañu tew ci ñoom ñëpp fii nga xamante ni moo di Tiwaawan bëggunoo bàyyi fenn ñi jullit ci réew mi yëpp teew nañu ak ci àdduna bi kii li ñu jox kàddu gi Maroc la bàyyeekoo te ñëpp xamoon nañu diggante Hassan II ak Serigne Abdul Aziz Dabakh Malick ndaxte grande mosquée boobu ci coopération senegal ak Maroc ci ko tabax kii di wax mooy directeur de cabinet wu ministre marocain des affaires religieuses moo war a jëkkati ay kàddoom wax ko ci gàmmu geek relation bi dox diggante njabootu Seydi El Hadj Malick Sy ak Mohamed Sy mu di diggante boo xamante diggante bu yàgg la te Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh renforcé woon ko moom yàlla na yàlla